aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina makin ginnaaw bu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waajur ñu ngi sant si tuwaa Cheikh Abdou Lahad mi nga xamante ni moo waral bis bi tey moom la ñu màggalal tey jii ñu toog fii ji taabale daayiratu muslimina wal muslimaat bi nga xamante si nii mu ngi soso woon 1983 ba léegi nii nga xamante ni ba léegi moo yor liggéeyu màggal gi xam màggal gi boobu ba léegi moo yor liggéey màggal gi ba fan yi ba jamono yi ñu jàll ci la ko fi ci la ko yeneen daayira yi fekk si waaye lu fi mas am ci bi ci màggalu Sëñ Abdou Lahad bañ ko dalee màggal ba léegi moo ko yor di ci taxaw taxawaay bu am solo ñu feggoog président Nguuda Gaye bi nga xamante si nii moo yor daayira bi moo ko jiite ginnaaw bi nga xamante ni mag ñi dem nañ ba mënatuñoo dem moom lañ ko teg ci loxoom mu jiite ko ñu feggoog moom ñu bëgg koo jox mu sànni ay kàddu bisimilah si Nguuda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 fi la ñuy àddoo doon daayira bi nga xam ni moo jiitu ci kër Serigne Moustapha Mbacké ah ñu bëggoon nag euh, ubbi nañu suñuy buntu di xamal ni képp koo xam ni ah euh, bëgg nga adhéré ci daayira muslimina wal muslimat rek ubbil nañu leen seeni buntu suñuy buntu yéen ñëpp ñu ànd liggéeyal euh, sëriñ Moustapha moom Serigne Abdou rawatina liggéeyal ko ci bisam bu tedd bi bis bii nga xam ne dafa wax ni bis bu mu man di doon moom la gën a fonk ci bis yi ah kon boog nun taalibe yi yaakaar naa bis bi rek lañ gën a fonk bis bi nag ñu ngi koy waajal depuis daaw ba ren ñu di ko waajal di def suñuy cotisation di def suñuy jaayante pour que rek bëgg bis bi jàkk bis bi nag bi ñu bi ñu euh, waaxoo ba agsi fi nga xam ne toujours dañoo baaxoo nun waa daayira muslimina wal muslimaat yi lenn ci matériel yi nga xam ne kër gi da koo soxla wala ab daayira soxla ko ñu dañoo baaxoo nag saa bu ñu jubee màggal rek ñu def ci eh, lu am solo ren jii nag ñu bindoon ñu jëndoon luy toll ci juróom fukki mbana jëndoon nañ ko indi ko fii ñu waajale ko màggaluk sëriñ Abdou Lahad wi ñu ko nag ànd ak fédération Sahadatul Mouridina li xidmatu Sayil Xadim soobu ci màggal gi bi ñu ci sooboo nag dugg nañ ci ci bisimillahi rahmaani rahim fas ci yéene génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di wax ni nag daayira bu daayira la boo xam ni daayira bu mag a mag a mag a mag te comme ni ñu ko waxee woon démb rek ñoo aman pas-pas boo xam ni dañoo fas yéene liggéeyub Serigne Touba bi li muy yaatu yaatu ak limi muy rëy rëy fépp foo xamante ni nii dem na fa rek ñu yóbbu fa suñu turu daayira wi nga xam ne kon ubbil nañu suñuy buntu mbooleem taalibe yi yuy Serigne Moustapha yuy Serigne moom Serigne Abdoul Ahad mi moo xam daayira boo mën a bokk moo xam foo mën a bokk ci réew mi ubbil nañ leen suñuy buntu pour ànd ak yéen liggéeyal Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Ahad bi nag mooy daayira muslimina wal muslimaat yi bi nga xam ni moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy ñooy sol bule yi te am siège social kër Serigne Moustapha moom Serigne Abdoul Ahad loolu mooy suñu daayira bu ñu sañoon nag képp koo xamante ni yaa ngi dégg suñu kàddu ndax eh, ni mu nangoo ku ku sëñ bi sëriñam nga ñëw adré wu ci muy sab daayira ni la nangoo képp ku sopp sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoulaye tamit nga ñëw bokk ci muy sab daayira kon daal ñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ci bëgg rek ñu ñëw jàppale ñu ci liggéeyub Seex Moustapha bii nga xam ni moom la ñu sumb kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaanal nag suñu fédération bii nga xam ni moom moo organiser mbooleem màggaluk Serigne Abdoul Ahad gi nu di leen ñaanal suñu borom kartanal leen te dooleel leen ba lépp li nga xam ne yéene nañ ko ci kër sëriñ bi rek ñu man ko ci barkeb Ahmadul Xadim kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ki doon wax ak yéen nag ndonga li doon wax ak yéen mooy nguude gi njiitul daayira muslimina wal muslimaat yi di alali Cheikh Moustapha Tedib jaamam moom moo leen doon leeral fii di siyaar ci biir ay jëwriñam kon jërë ngeen jëf